kon daal ki nga xam ne day commerce wala muy baana baana daal wala muy yaxantu ak noo ko mën a tuddee su amee ñaari million ak téeméeri junni ak juróom-ñetti fukk ak ñeenti téeméer su ko amee ren ba déwén na xam ne am na nisaab su amee lu ko ëpp nag mënta wax su ko defee nag loolu lay séddale ñeent fukk maanaam da koy diviser par quarante lim bi ma wax léegi rek su ko doon génnee asaka mi ngi ci génne fukki junni ak ñeent ak ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk xam nga ne am ñaari million ak juróom-ñetti fukki junni ak lu topp téye ko ren ba déwén yàlla laaju la ci lurul fukki junni ak ñeent ak weccet loola sunu borom dalaa bëgg yërëm waaye bu fa gënoon a diisit nga war ko jiim am na ñoo xam ne nag buñ buñ nee asaka dañ koy woyofal te bu julli jotee ñu julli soo woor jotee ñu woor waaye nañu xam ne ni julli doone ponkub lislaam ak woor ak dem mag nii la asaka doone ponkub lislaam te bañ koo joxe dafa am lu jur am na lu muy jur ci àdduna am na lu muy jur ci àllaaxira bu dee ci àdduna xadis ba nee na nit ñu téye seen alal ne duñ joxe asaka suñ boroom natto leen bekkoor daal ne bu lu woon ak bahima yi kon sax dootu taw kon sunu boroom dafa ñeewant jur gi moo tax muy taw waxaat na ne képp koo xam ne da nga koo joxe ngir yàlla rek ak sàkku tuyaabo eh, yàlla nangul la ko waaye nag soo gantoonee doo ko joxe dañ koy foqar ci ci yow te du duñ ca yam la nga am lépp tam da koy xaaj ci digg ba foqar ci ko ba nga xam ne yàlla ay waxam waaw rek la sant bu doon jamono joo xam ne sax lislaam dafa àgg fa mu àggoon ci doole mbooloo mu gàntu ne duñ joxe asaka dañuy xeex ak ñoom dañuy dal ci seen kaw ndax Abu Bakar ne as-Siddiq mos naa xeex mbooloo moo xam ne dañoo gàntu woon ne dootuñu joxe asaka am na ñoo xam ne nag dañoo xamul moo tax duñ ko joxe am na ñoo xam ne seen seen yëngu ak seen liggéey dafa yaatu ba tax duñ am jotu di ko génne waaye loo ñàkk ñàkk jot ni nga talee adduna soo ko talee sa borom rek danga nga jëf li santaane joxe azaka nag dafa bari lu ci aju mooy jëf ko ndax li muy santaane bi yàlla rek jar na ko jëf ko ngir muy wane ne yow sa alal yaa ko moom waaye moom moomu la am na ñoo xam ne seen alal moo leen moom nga fexe ba bañ caa bokk yow nga moom sa alal jëf ko ngir mu fóot sab xol ci jàngoroy nay wa man yuuqa shuxa nafsihi fa ulaika humul muflixuun jëf ko ngir nga tàggatu ci joxe ab jullit rawatina ab taalibe dafa war a tàggatu ci joxe wa mimma razaqnahum yunfiquun jëf ko ngir xam ne danga war di ñaq dafa am santaane yoo xam ne ñaq la laaj sa jëmm mooy sonn waaye dafa am santaane yoo xam ne ñuqi la laaj mooy nga làmb si ji sa sa jiba joxe ngir jëmmi yàlla jëf ko ngir xam ne li nga yor moomoo ko suñ borom dala ko dénk jëf ko ngir xam ne moo lay sàmmal sa alal xadis ba nee na xasinu amwaalakum bi sadaqa nee na su ngeen bëggee ñàkk seen alal aar seen alal dee leen ci génne àq yàlla dee ko joxe ngir bëgg sa alal yokk ndax joxe du tax a ñàkk di ko di jàll nag di jal di jàll defe ne sooy jàll day tax mu bari te su baree da nga koy jël jal ko jël ko yombut wa ma am wa ma aataytum min riban li yarbu fi amwali nnaasi fala yarbu inda allah wa ma wa ma aat wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu kon la ngay jàll yàlla amu ca soxla waaye li ngay joxe te yàlla tax loolu am soxla dee jëf ndax day tax nit ñi sopp la nit ñi soo leen amalee njariñ dañ lay sopp dañ lay ñaanal ndax koo xam ne soo amee mu am day ñaan nga am koo xam ne soo yokkoo mu yokk day ñaan nga yokk moo tax da jox nit mu ne la li ci des yàlla na barkeel dalay yéene la nga yor te dalay ñaanal nga gën koo man te ñaare ki ëppal nit ñi njariñ day gudd fan te lamu man day yokk wa amma ma wa fa wa amma ma yanfa'u naasa fa yamkusu fil ard nit nag su liggéey na fexe ba sàkk lew la ñu santaane waaye di ko fàggoo nam la neexe di ko fàggoo ci anam gu araam ba am ko nag bëgg koo def ci asaka wala ci jaamu yàlla yi sunu borom du ko nangu ndax yàlla dafa teey du nangu lu dul lu teey inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba foo gis ñaari alal ju sànk ju laatu na nga xam ne ñàkk a joxe asaka moo ko waral yonent bi neen na alayhi salaam maa talifa maalun fi barrin wala fi bahrin illa bi xabsi zaka nee na foo gis alal ju laatu ci jéere wala ci géej na nga xam ne ñàkk joxe asaka moo ko waral boo ne man de daanaa ko joxe te teewul sama alal laatu na amaana nga dend ak koo xam ne du ko joxe te ñax gu la waw day lakkaale ñax gu tooy amaana it muy ab nattu rek boo xam ne yàlla ma la ko teg moo xam la tax mu teg la ko boo dee joxe asaka di ko jox ña ko yelloo day tax euh, seen xel dal te bu seen xel dalee ñu tala jaamu yàlla nit ki bu xëyee di kër kër yi di wuti lum am amaana du tal jëfe ndigal la wala bàyyi tere waaye su xel ma dalee rek dana tal jaamu yàlla di def la mu santaane bàyyi la mu tere moo tax mu ne fal yaabudu rabba hada al bayt alladi ataamahum min juuin wa amanahum min xawf ba ñu demee ba seen xel dal ñu boole mucc ak mos rek dañuy daale tal yàlla moo tax nag sëriñ bi joxe ndigal ne nañu sos lu ñuy wooye kër asaka yi di ko laaj ndax asaka doonul loo xam ne dañu ko daan bàyyi rek ku mu soob joxe wala nga bañ a joxe dana xut xud min amwalihim la wax na nga jël ci seeni alal sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha kon asaka dañ koy laaj sëriñ bi nag ne kon nañu sos mbooloo moo xam day laaj asaka am nay numéro téléphone yoo xam ne ku bëgg a xam looy joxe soo ca wootee ñu wax la ko man day am naa nangam bay naa nangam laa am ma de damay jaaye nangam laa am wax la ngay yëngatu wax la nga am ak ba nga ko amee ndax mat na ren ba déwén ñu ne la ku am nangam nangam ngay joxe ñu ne la su ma ko bëggee joxe nu may def ñu ne la nii ak nii ak nii ngay def ba joxe ko su ko defee ñoom buñ ca jotee nag na ñuy def ba seeni borom jot ca ñoom xam nañu ko ndax asaka bokk na ci li muy saafara nit ñi am lu bare bare bari Euh, seen giirug dund ñi ñàkk seen giirug dund lislaam dafa bëgg loola wàññiku soo ko defee da ngay doon ab surga tey su ëllëgee nga doon njaatige asaka ñu ko joxee nañ ko war a joxee da nga gis koo xam ne buñ ko ko joxee ren bu déwénee moom day joxe asaka waaye def ko weccet di joxe pari junni wala ñeenti téeméer ña ngi koy jox duñ ko jariñoo da ngay jox nit ki loo xam ne dana ca mën a liggéey ku jàng mécc ba mokkal te amul lu mu def ndax amul ay moyen nga fexe ba mu am ay moyen di liggéey su boobaa yalwaan mi dana wàññiku taxawaalu bi dana wàññiku ñi bëgg samp kër te ko dana wàññiku ñi amul fu ñu dëkk di fanaan ci mbedd mi dana wàññiku su boobaa daal mbooleem li nga xam ne ay gàllankoor la ci jamono dana wàññiku su boobaa sax danga gis ak bokk gu yàqu woon te dana defaru ndax soo amee sa loxo jot sa ginnaaw ngay seetaan say bokk doo leen dimbale buñ la ko waxee ak buñ la ko waxut dañ lay jéppi dañ lay mere nit dafa fonk boppam soo ko fonkee mu fonk la soo ko geesoo mu bàyyi la xel soo ko dimbalee mu ñaanal la nañu xam ne itam li ñuy wax fu lislaam da ko santaane waqfu mooy lan mooy nga wut luy jur alal ne jox naa ko yàlla tabax ab immeuble bu mag ne def naa ko addiye jox naa ko sëriñ bi mooy jox naa ko yàlla ndax sëriñ bi loo teg ci loxoom teg nga ko ci loxol sunu borom su ko defee nag muy loo xam ne la cay roose ci alal dañ kër asaka yi moo koy jël di ko def fa nga xam ne fa lañ ko war a def kon daal képp koo xam ne am na loo war a laaj soo laajee ñu tontu la soo am loo joxe soo joxee ñu jël ko defal la ko nag fa nga xam ne fa lañ ko war a def waxtu wi moo nu dab waaye li ñu war a leeral des na ñu ngi ñaan yàlla sunu borom. tabaraka wa taala mu sàmmal na sunu kilifa gi xalaat bu rafet bii mu def nga xam ne ca jamono saxaaba ya moom lañ doon def mooy di ko laaj di ko dajale di ko jox ña ko war a jox ndax ñi koy laaj ñoom xam nañ fa ñu ko war a dugal xam nañ ñi ñu ko war a jox ndax wa fi sabilillahi ci sax naal bii mu naal rek mën na caa tàbbi mooy di ko def ci liggéey bi nga xam ne da koo sumb kon yàlla nañu yàlla sàmmal sunu kilifa guddal fanam tam doole ko wér ba lépp lu mu sumb rek yàlla na ca am ndam te ànd ko ak moom wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.